asalaamaaleykum man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante Xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah. mu ne tël Gambie jàkkaarloog moom. xam ne golo golo golo du yow yow xamoon nañu ñoon simbu gaynde la. dama lay laaj rek yow xamoon nañu ñoon simbu na. ba léegi da koy def. ah déet xaw ma di jaar na ci di. intéressé na taxaw nekk doomu rek en tant loxo noo bëgën baal bët gémmi leneen li ci des ay intéressé wu man xam nga lan laa xalaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama. mbokk yi suivre luttetv.com ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen ko amee woon rek bee passé lu li ñëw fii signé contrat bi bi nga xamante ni moo ko war a lié ak Jamaïcain ginnaaw bi ñu amee contrat moral moom ngeen amoon booba léegi signé woo leen woon fenn waaye nag léegi kii dafa fàqoon keroog daw ñëwul signé si xam naa nag dafa duggoon si àll bi ndax nee na Casamance la duggoon ak Guinée Bissau pour yokk cere dollu ñeex ñibbisi na ñëw Lutte TV dañ ko nuyu baa ko mu nuyu ñuy suivre luttetv.com ngeen seetaan image yi mu signé ak Jamaïcain combat bi nag le 15 décembre la fële ci Gambie du dëgg maa ngi lay ziar Lirou. Lamine maa ngi lay fay jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall lamin maa ngi leen ziar di leen ñëpp waa Lutte TV euh, euh, di jaale dama amoon dëj suma tante bu gaañoo sama magu yaay sama tante sama lépp ba ma defee accident ba ndar moom moo ma doon sang këram laa nekkoon barki Cheikh Ahmadou Bamba moo ma doon sang. 2009. waaw moom moo ma doon sang. kooku man mënu koo fay. moo tax fan yëpp damaa xawoon nekk si naqar waaye ku naf saay xatin mawtun bakkan bu ñam dund nga ñam dee. ma yàlla ko yàlla xaare àjjana sama yaay la woon sama xarit la woon vraiment di ko jaale papa Ndiaye suma grand frère papa Ndiaye ca France ak Aada Ndiaye ak ñoom Marème Ndiaye ñoom ñëpp maa leen koy jaale sama jigéen sama mag papa Ndiaye. Euh, di gërëm waa Géejawaay gama jóge di gërëm sama doomu nday Dieye seen grand promoteur ay Dieye géejewaay laa moom laay tiitaroo te moom laay sagoo mënu maa waxtu tudd ma géejewaay su ma ko xool damay am bàkkaar di gërëm sama doomu nday Balla Gaye 2 grand champion borom géejewaay laa ilaha illallah di gërëm sëñ Cissé mu sëñ Babacar sama xarit ak sëñ Samba Ndour sama xarit di gërëm sama sëriñ ba sama sëriñ bi non kii sama sëriñ bi du mu tooyati waay oh ga sama jaabi maa ngi koy gërëm di ko sant sëñ Xaadim Kanji ah. kii nu mu. xanaa sëñ Bees non sama sëriñ la Gassama sama sëriñ Géejawaay la dëkk. sëñ sëñ moodu fay li nga gërëm ñëpp da ngay instant bi da ngay dóor da gërëm ñëpp. ñooñu sama sëriñ yu may ñaanal la. mënut a ñàkk il ma gërëm ñëpp di gërëm uh, Modou Mbacke baaxee kuti sama doomu ndey waaw. ci loo nekk. sant yàlla bu baax a baax. waa Guinée. waa Guinée. Guinée <laughs> ku la wax damaa demoon Guinée. Jamaïcain non non ah Jamaïcain day wax lu ko neex rek Jamaïcain moom mi ngi noonu rek booy boobu xaw ma promoteur la xaw ma saytaane la. lan moo la tere lan la affaire yu ndaw la woon rek ay ndaw la woon rek. nee na demoon Guinée di jaar fa. dara xamalu ma ne man booy man wóoluwuma ko dafa tëgg combat pare ma ko man maa la wax lii man yow mi ma wóoluwuma la damay maslaa nii rek waaye yow it wóoluwuma la de. non non non non wóoluwuma la man bës daal wóolu naa ko li ma jox la kafe nga naan. non joxu papa ma ko jox joxoo ma kafe gi su doon yaa ma ma ko naan papa Ndiaye ma jox kafe te boobu papa Ndiaye moom mooy loolu xam naa ko waaw garaawul papa Ndiaye ma waaw sama gars la c'est mon ami c'est mon frère mhm. waaw. tey da ngaa sa takk sa verre ñuul xanaa da ngaa gis wul li verre mu takk ma. demeewul noonu c'est euh, sama verre soo gisee ma takk ko fan yii passé dama doon entraîner comprendre nga léegi booy dóor ma ci bët waaye si loolu moo tax ma takk verre waaw xam nga rek booy xam nga. mooy loolu am na yoo xam ne saakees xam nga rek booy bi moom da ngay waaru booy bi dafa tàng booy bi jël bi ni ma jëlee noonu bay kii bi si man rek dajeeg man épercure bi bët bi xaw sama bët bi ma gaañu si bët. loolu kon instant bi saakees ngay kontaan. waaw yow man ku ñëpp laay kontaagal fi ne booy se que booy xam nga lu ma neex xam nga loolu sant yàlla c'est fier sa géej waay c'est xam nga tey man ma am bis booy yëpp jóg ba gën maa bëgg bis bi xam nga loolu dafa neex dafa neex Balla Gaye ci jógeem gën maa bëgg bis bi la da geer waxi nopp ñoom guy gi ñoom saa kees xam nga ñoom Alioune Seye 2 xam nga gën maa bëgg bis bi di ma yee entraînement sonal ma witt witt witt ci entraînement yi loolu dafa neex loolu rek sant yàlla la. message yi ndaw yi révélation bu ndaw bi ñëw ñoom Pape Thiam ah ñoom Marley boo yooyu yëpp xam nga li la wax booloo ñoom guy tout ñëpp ne combat bi suñu combat la moo tax bi laay ëppoon de presse ba mbër mu ñëwul xam sama ëppoon de mooy monument Guédiawaye di seen mag mooy dafa ëppoon de presse. foo koy defee. <laughs> ko sama rakk ci defee woon rek Balla gay 2. non yemal sa kon rek. déedéet stade Amadou Barry laa koy defee. bul dugg ci loolu nag tamit. sa yoon nekku ci yow saytaana nga yow sa yoon nekku ci man maay magu Balla gay 2. Balla Gaye fu ma wax fa laa koy defee fa laa koy defee. Balla Gaye mooy disde ma la koy defee open de presse fa laa koy defee. mën ko def sa sa bunt. nekku ci fu ma koy defee yow saytaana nga yow man fu ma wootee stade Demba Diop mu fees. kon Amadou Bari waxi nopp di gërëm monsieur le maire Aliou Sall Sarr ngaali buuru gerte lam toola mooy maire Guédiawaye man xam nga loolu dafa neex at Néné Tall ministre de la jeunesse. xam nga tudd ndànk Néné Tall xam nga ko je connais très bien Néné Tall xam nga ko sunu ministre bi mooy ministre de la jeunesse Guédiawaye la dëkk. Sathiès nga fi tudd sànq ni da ngeen a contact mais Sathiès rek contact agul. que non non c'est pas yow xam nga ci dara xool Lamine su du waxee caaxaan jeex dëgg a des Lamine déglu ma nga wax right jame eh, wuli booy ñëw nga ca sunu safar bi safaru Balla Gaye bi ba nga ko introsé lan la la wax. non waxal dëgg rek da ko doon jàppale. Oh, kan moo jàppale. moom da doon jàppale wuli parce que. sa trial ba met at yàlla sa lii ngay def ni yàlla boo ci am dara. saa kees moo la li ngay def yàlla boo ci am dara waxal sa diggante ak yàlla ba xam saa kees moo la li ngay def sa diggante yàlla yàlla boo ci yow saytaane nga naafeq nga yow non non naa fekk nga ndax soo waxee sa ñoom gis nga booy xam nga wax jee fi nekk man duma ma genre yi nga xam mbër yi xam dem di daw làqu man du ma daw làqu man sa naturel man géejawaay laa am géejawaay laa tiitoroo géejawaay mooy sama pari waaw géejawaay mooy sama pari man suma ma kenn faralul waa géejawaay ànd ak man am naa dam waaw waay waaye man du ma daw làqu. kan mooy xam nga ko wuli kenn xamul fu far soo déggee mu ne parcelle tey man nga Pikine vraiment ah. mbëru askan wi la. ah man du ma mbëru askan wi waxal rek te yàlla tax waxal rek. non non c'est pas vrai waxoo dëgg waxoo dëgg man ñëpp may war man li may xëy di jot ci appel du ko am man xaw ma kenn xaar ma yàlla ku ma bañ nag yaa xam sa la. man daal ñëpp laa yéen a jàmm yéenewu ma kenn bon ku ma yéen a ja yéenewul jàmm nag sa affaire la yaa xam. nee na wayaan nga ba am oto. Oh, ay wayaan nag yooyu yëpp man xoolal sama yaay ji Adja Gass ca Angleterre maa ngi koy ziar di ko gërëm di ko sant yàlla fi yàgg te wér sama yaay ju baax la ma nga ca Angleterre uh, ak uh, kii nu mu tudd non dafa ndànk dama lay expliquer uh, laat Qatar sama jour ba maa ngi koy gërëm di ko sant tam nekk Qatar laat waaw. mënoo fee nekk nag di gërëm nit ñi da ngay soo yow yaa ma laaj. ana oto bi dama laaj. man oto bi oto bi mi ngi fi mi ngi poor. ah génnagul xanaa da nga loo koy non mi ngi poor xam nga wax ji dafa bari booy dañuy ratatata waaw man man man damay laaj man dafa am yoo xam dafa maa jomm. man ma juddoo fi ndakaaru yaroo ndakaaru màggee ndakaaru daj fi lu ne waaye waaye sant yàlla sama gars yàlla na yàlla xaare àjjana ku ci mel ni père Alioune Seye père Gora Seck Cheikh Mbeng Cheikh Seye Mama Ba yàlla na yàlla xaare àjjana loolu duma ko fàtte mukk accident boobu ma ko defoon sama yaay ji làqu tey muy mère Adama Ndiaye moo ma doon sang këram laa nekkoon boobu amaguma soxna boobu amaguma jabar këram laa nekkoon barki sëriñ Bam mère bi ma doon sang ñu tabax sama loxo tab sama bopp tabax sama tànk mère bi ma doon sang barki sëriñ Bam di gërëm sama waaje Thierno loo ministre booy borom daarum si moom it ndeysaan ku jar a gërëm la sama waaye ndax sama accident boobu su du woon moom dina métti trop tamit. léegi coow li na nag. yow ak yow ak Wouly taxaw na suñu ngeen contrat foo toll ci waajtaay non maa ngi ci pare naa c'est que koy dégg fan yëpp muy naa mu naan damay jaan jamay kee jaan bu mag koy comprendre day diree koog day non non demeewul noonu man dama am kilifa man su ma nekkee mag tam dama am kilifa daa am ñu nekk sama ginnaaw comprendre nga léegi nag ñooñu ñoo may waxal defal ma def bàyyil ma bàyyi surtout man euh, moom xamul fu muy taxaw ah. non non non xamul fu muy taxaw booy bi Bada Dione ko gérer de. Oh, waaye Bada Dione Bada Dione maa ngi koy jàllale waajuram wu euh, jigéen woowu làqu tamit temps yi vraiment Bada Dione waaw waaw non non Bada Dione mënu aw ma dara lu ma koy wax ndax fi mu ne moom moom Bada Dione su ko gérer man ñoom ñaar ñëpp laay boole sun waaw. promoteur yi Bawol yëpp a ngi ci ginnaawam ñoom Fallou Ndiaye ñoom Assane Ndiaye ñoom Kañ. ñoo xam promoteur bu ànd ak sa affaire la yaa xam man lijjantiw ma leen. mais ko ànd ak moom promoteur bu ànd ak moom yaa xam sa affaire la te am na lu ma xam lu bëri loolu suñu dof-dof la ku fësal sa ànd ak wulli naa la waxal luy tàkk te du fay li ma xamal ci yow te nëbbal la ko di la ko suturaal. Ah. waaw waaw. kenn amul droit ah, nanu ñoo xam nanu ànd ak moom ñu ko fësal. ku ko fësal xam li ma leen xamal ak a bëri promoteur bu fësal ne wulli nga àndal xam naa li xam bari na de dama noppi leen sama gen di defar. waaye ngay nappe rek. non du question nappe yow xam nga li ma la wax Lamine yow xam nga ma barki Serigne Saliou Mbacke li ma xam Lamine daa bëri. sama waa ji jëy seen kenn du moom. ah jëy ngi ne ànd ak yow. c'est mon ami c'est mon doom jëy laa ko tuddee man. xam naa kon nag jeex na kooku sama xarit la suma genn wàll la sama doomu nday la man ak moom du tey. waaw mooy sama agent <laughs> Dieye mooy sama agent. mooy waxaale combat yi mooy waxaale combat yi waaw sama monsieur moo naw moo tax kon xam ko koo xam ni moo lay waxaale sa combat xam nga du mën a tëgg sa combat. voilà noonu la demee sama xarit la te daa xër man day san te daf maa yéene. yàlla ko yàlla jàppale at jabaram yi Kumba Saadi Seynabu at say ñoom ñëpp dóor ba mu tëdd ba nga waxoon yaa ci ba léegi barki Serigne Saliou Mbacke maa ci dama koy dóor ba mu tëdd combat bu ko tada tada nga sa musiba est-ce que arbitre bu sa diggante wuli di nga taxaw wallaahi wataalaahi laa mi wuli bëggul xeex sax maa ko gën a bëgg xeex téeméer yoon bëgg na ba wane ko dama ne la bëggul xeex du xeex kat day sóob rek man dóor naa ñett ñu daanu barki Serigne Fallou Mbacke danga may laaj gis nga danga may laaj ñi ma xam danga may laaj man ñi ma xam dëgg nee naa la ku ma yeb tey nga ma yeb bi ma defee accident bi ku ma yeb tey nga ma yeb pam mama sunu doomu nday douanier bi dafa am dëj euh, rakam bu jigéen moo décédé yàlla na ko yàlla xaare àjjana pam mama xam nga ko mooy xam naa ko waaw kan kan nga dóor mu daal euh, vandam sulum le ah waaw euh, waaw looy laaj ba pay dëree ah waaw dama <laughs> dama lay laaj rek lan ngay laaj dëree xam nga man vraiment vraiment li may wax seen saytaane gi mi ngi nii non li ma lay wax seen saytaan ak yéen mi ngi nii booy ma xamal la wax saytaane baaxul saytaane baaxul journaliste da ngay yemale. waaw léegi ah, déglu ma journaliste déglu ma rek déglu xam nga fan yële paas am na benn journaliste boo xool journaliste da ngay yemale. liggéey sa liggéey normal ñëpp naw la waaye su fekkee da ngay jéng ka di def moo tax ñu naan léeg-léeg am ñoo xam ne ay la lañu. te loolu baaxul journaliste bu nekk saytaane baaxul ah. mais mais journaliste yëpp da ngaa ni da ngaa jàpp ne ay saytaane. non non du ñëpp de am na du ñëpp am na am na ay saytaane ñoo xam dañuy féewale dañuy jaxase. Babacar la la. ah fan yi daal mi ngi xaw a moom daal mënaguma koo jugé gul fenn ndax gis naa ne muy koppatoo mi ngi soppeeku ndànk-ndànk sama waay la woon nag ay temps waaye mi ngi soppeeku. Ah, da ngay doon yëg mbokkam nag. waaw dara ah man duma mbokkam Sarr bu sëñ Mansour nekk ca France. chérie Aminata Diallo maa ngi koy gërëm di ko sant ndax man li may am ci ay appel extérieur vraiment vraiment vraiment booy lamin Lamine su ma la waxee dëgg lamin Lamine vraiment war naa góorgóorlu Lamine ñi ma bëgg dafa bari Lamine euh, asu asu sama jigéen la nekk ca France euh, asu mu Balla Gaye 2 at asu mu Balla Gaye 2 at Fatou Soppe Nabi ñu nekk ca Italie ñoom ñëpp maa leen at saa ki saar bu sëñ Mansour Serigne Aminata jàll at sama waa ji nu mu tooyati alam ndaa doomu nday As Malick alam daa doomu nday As Malick at kii nu mu tëddee waaye nu mu tëddee ah, Pablo. wuli wuli wuli xam nga xam nga fi yow ak wuli yéen a fi a nekk. waaw moom ñëwul. dafa nekk ci ay business am. parce que dégg naa temps yi day ay oto di jaay. Ah, yow dimbali moom moo ñu ko wax. booy waxoo dëgg gis nga booy li may waxati seen a yëpp oto ngay taxaw naan day jënd oto di jaay. mais moo ñu ko wax. c'est pas vrai amul waxul dëgg waaye waxul yéen ñaara yem sax yow itam waxoo dëgg yow. kon damay napp. waaye dimbali ma yow xam nga loolu yow xam nga lépp te et dama bëgg nga wax ma keroog fan yi passé kàddu gi la xuma iwiti nga ko fi. loolu na instant bi jabaru jéy da laa génnee kër day wax lu ko neex kooku sama rakk la suma jabar la muy Kumba Saadi. Ah. non xam nga su taxee naan ah, damay dem ci jogana la man booy gis nga ni nga may defee attention de <laughs> attention de man dama samay xarit lan waaye du ma lambar lambari fenn de. man de loolu jaaxal na ma. loolu mu wax noonu ay ginaar wooma jabaram fu mu toggee ay ginaar wooma c'est normal. loolu jaaxal na ma de parce que waxoon na la kër Balla Gaye dañ la faa génnee. kër Dieye bu ñu la fa génnee loolu ban ko waxee kër Balla Gaye yow ab ba nga laajee Balla Gaye lan la la Balla Gaye tontu ba nga laajee Sa Thiès lan la Sa Thiès tontu waxalal te yàlla tax rek te waxal te yàlla tax doo jàdd jàddal doo kii waxal dëgg rek raay yow laaj nga introsé nga Balla Sa Thiès lan la la wax introsé nga Balla Gaye lan la la wax ah lu la wax ci loolu. waaye man kay tontu taxu maa ñëw yow wax yaa mayal. non non xam nga damaa bëgg nga bañ a nekk naa fekk tey wax dëgg tey yàlla tax. waaw naa ko def. voilà ba nga laajee saa kees lu la tontu. non man kay doo ma laaj man maa la. yow laa ba nga laajee saa kees lu mu la tontu. xaw ma koy fàtte naa ko. waay waay waay booy waxoo dëgg waay yow naa fekk nga waay. barki Sëriñ Bamba naa fekk nga. billaahi naa fekk nga yow nga laaj saa kees mu wax lim la wax nga laaj Balla Gaye mu wax la wax man booy ñooñu samay rakk lan samay rakk lan. waaye léegi c'est mon ami. léegi ko njogoonalu kumba sama jabar la suma rak la. mais lekkoo njogonal kenn. déglu ma man ma dépasse naa lu may lekk ay njogonal man kumba vraiment vraiment mag lu muy man heure njogonal sax may fekk entraînement kumba day togg lee la ay grade yu baax d'accord woo ma ah ah at say na bu jabaru kumbal jabaru jéy la at say ñoom ñëpp maa leen gërëm den sant ndax ah, àdduna àdduna amul solo. àdduna amul solo wax dafay rafet nañ koy rafetal mu toog di yàq sama der fan yëpp di ratatati nekk ci presse. boo xam ne Balla Gaye moom bu la génnee këram génne la géej waaye da nga fa xat. waaw laaj man nan la ma mën a génnee foofu te man may kilifa gi dama lay laaj nan ma mën a génnee foofu te man may kilifa gi. xanaa kër lak ngay dem rek. dama lay nan la ma mën a génnee foofu. kër lak man ñooy seen kër yi am naa ci dogal. kër moom moo yor comme moom moo yor seet bu bees. waaw waaye dégg naa moom nga xew. fi xajal kenn moom fi mu nekkee moom du fat kenn day seetu nooy xajalaatee Lac de Guiers day seet nu muy seet nu muy xajalaate. ko mu attaqué de. ah gars ah, dina attaqué kay Lac day attaqué nag yéen bu lax loolu day attaqué. gars yi nee nañ jot na instant bi mu bàyyi rasu bi. fu muy rasoo fan lay rasoo fi mu ne yow nga yow booy saytaane nga saytaane nga non saytaane nga. nga <laughs> xam nga waa Balla Gaye laa waxal léegi. gars yi de bonus la ñu woo nee nañ nga def bonus. taa Balla Gaye laa doon waxal. yow booy dimbali ma booy waxoo yow bu jafe-jafe yow saytaane nga yow waaye bàyyi ma yow booy yow naafeq nga yow. yow promoteur da laa war a génn seen association bi sax yow promoteur yooyu ma xam yëpp ay naafeq ngeen. bàyyi tooñ. dimbali ma moom jafe booy bi naafeq la. bàyyi tooñ la dimbali ma tooñu ma wuyu ma lii ma lay wax. kàttan sa mère lii lii ma lay woo. nga wax. Talla sama benn dama am sama benn booy Talla Diop xam nga ko booy boobu di ànd ak armée Talla Diop tam dëkk benn barak sama booy la dafa maa bëgg ndeysaan day sonn sama bis bi Talla Diop. Talla Diop at kii nu mu tudd euh, jëf jël Baye Fall bu mag ba nekk États-Unis. jëf jël da ngay door wuli mu daan. xam na ci dara jëf jël xam na ma Baye Fall ay Baye Fall lan jëf jël xam na ma je connais très bien Ibakara ca États-Unis maa ngi koy gërëm di ko sant tamit sëñ Madoune say borom taw feex maa ngi koy ziar. waa léegi léegi sama xarit la. géej waay ba léegi amagoo leen ay combat de bala Gaye est-ce dina bëre. Balla Gaye sooba yàlla dina bëre Sa Thiès dina bëre Lac de dina bëre. bala Gaye nañ dafa ndànk Balla Gaye kan lay bëre. Balla Gaye mun na bëre Tapha Tine Balla Gaye mun na bëre booy Niang. kon combat moo gën a taxaw instant bi. ci Balla Gaye Balla Gaye koo ko jox mu bëre. yow mais ban nga bëgg. man moom bu mu rek bëgg naa ko. ban la bëgg moom. Balla Gaye combat bu ne mun naa bëreeg moom Balla Gaye bàyyi kenn day liggéey mais am na yow combat yu la gënal parce que toog nañ buntu këram am combat boobu. non non dama ne woon xa mag ñi nanu may xale yi sens tey jii euh, Modou euh, kii su taxawee Ama Balde dafa neex Balla Gaye booy ñaa dafa neex. Balla Gaye Boy Niang bëgg nga combat boobu. su man bëgg naa koy. borom fonde bi. fonde kay su ay <laughs> foofu kay su dootu fu ñu wax waxi combat waxi fonde sax ñoo du du nekk di yëngal ay fonde de. day ñëw jël ci la xëpp mu tuuru. mais Balla Gaye Boy Niang day curuxu curuxu. oh oh su muy curuxu curuxu fu muy curuxu curuxee Boy Niang damay man combat mag la dëgg damaa yàkkoon dina curuxu curuxu waaye boobu ci deful curuxu curuxu kon nag su jëlee Balla Gaye fu mu jëm. maa ngi koy nuyu au passage nag sama boy la vraiment. loolu wax leen rek ci combat loolu ak kii c'est que bëgguma affaire boo xam ne gars yi jëlee ko ay affaire yu noonu déedéet affaire yu noonu amu fi sport la day liggéey booy Niang day liggéey ñoom Balla Gaye dañuy liggéey Balla Gaye ku ko fayee lu mu jar barki mu bëre Boy Niang. xam ci loolu la leer. soo ko fayee lu ko jaral Balla Gaye liggéey su ko neexee nag ci yoonu làmb mun na bañ a jël ba kii ah. way su dee promesse du jël mi dee Boy Niang Balla Gaye pourvu na Balla Gaye su bàyyi bëre sax neex na Balla Gaye su bàyyi woon bëre tey neex na waaye xale la booy yi magewu leen dara. barki Serigne Fallou Mbacke booy yi magewu leen dara ay Boy Niang nii Balla Gaye magewu dara de ñoom ñoo ma yem. Boy Balla ko man dañoo bokk ñoom ñaar ngay tëkkale Balla booy ñaar ngay tëkkale. damay laaj rek bokku ñu Balla ko man téeméer yoon. Ah. waaw c'est vrai ah yéen. bu ci làmb ji. Balla Gaye man booy ñaar moo fi man waay. bu xeexee nag waay yoo oh, oh, booy ñaar du xeex ak Balla Gaye. bu xeexee non duñ xeex. Balla du xeex ak booy ñaar Balla Gaye booy ñaar soo doon bëreeg ñëw yooru. mën na xeex trop na daanaan la waaye soo doon bëreeg di Gaye ñëw yooru. yii Balla Gaye laa ilaaha illallaah doomu Double Less magi saa kees séeri buri bàcc li bàyyi rakku liiru jaan. rakku liiru jaan. waaw rakku yaa ñu rakku liiru jaan Balla Gaye booy la goos la xale sëri sërif Tambédou. patron liiru. waaw wuy ma sama sëriñ la. sërif mu yàgg ma. Ah, xam nga ko. mu tafaatin ma. Ah, di <laughs> rek tafaatin xam na ko ah nee sërif sax géej la nekk sama xarit la sama sëriñ la. Ah, sëñ Cissé mu sëñ Babacar sëñ Modou fay xam nga xam nga maxal sant yàlla rek. yow ay kilifa nga xam na. non non waaw kon baax na wax baaxul ndax booy suy nekk di ratatati di ratatati dama damay direeku man sama lépp ci axe la lépp ci yoon laa koy teg man du ma fi nekk di kii de man sama lépp ci yoon laa koy teg. nee na mag dikk na nag ndax cinquième étage mënoo mënoo koo yëg. waaw tey su doon rawante ma moom cinquième étage barki Serigne Bamba Mbaye ko gën a te xam lu ma bëgg dama bëgg ñëw booy bi moom su fekkee ñi mën a leex su ñu bokk entraînement ñu dem géej wala ñu dem ca ñu bokk géej. moom fu ñu doon nga def ay soo. ah yaa waaw yaa nga foon waxal rek ku njëkk taxaw te yàlla tax Lamine. non man loolu taxuma njëw la man yow yow yaay wax rek. nit ñi ah, voilà wax bi bu jaadoo nit ñi ma nga foon su waxalee yàlla promoteur boobu saytaane bi jamay kee ma nga foon saytaane la poofu ñuñ bi ba ñuy soo wulee njëkk a taxaw man damay liggéey damay ànd ak booy yi man booy dañ may man ay xale yu ndaw la àndal ñu may diriger su ma ñu jox ma reer bu baax ma reer bu suur. kii waalo ngay préparé combat. man géejawaay gépp laa koy préparé. contact yi laa foo koy def fépp a ñëw man fu ma nekk. ban école ñu fekk ma fa soo ñëwee école Balla Gaye di ma fekk soo ñëwee écrit waalo di ma fekk. école bi nu sax. Eh, Souleymane Ball. Souleymane Ball parce que dégg naa wuli rey na fa béyu ñu. waay waay moo xam man loolu tiitalu ma man loolu tiital man taalibe laa man Baay Fall laa man xolal man noo xamal la benn affaire gis nga man yooyu taxuma su dee loolu la yaakaar moom mi ngi nax boppam. man aw ma tiitukaay may magu Balla Gaye 2 Balla Gaye fexe bu ne fexeel nañ ko fi. waaw loolu am Balla Gaye fexe bu ne fexeel nañ ko fi. amuñu amuñu tiitukaay amuñu ragal ñun géejawaay lañ dëkk guddi guddi géejawaay te Boy Niang bu jëlee Balla Gaye numéro 2. non Balla Gaye da koy defal affaire da koy duma waaw way da koy duma bokkuñu. li Balla Gaye da nga jàpp ne mënu koo yëngal. kan da nga mënul yëngal Balla Gaye. mënut koo yëngal Balla Gaye Boy Niang mënut a yëngal Balla Gaye nag yow ah, xale yàlla nag Boy Niang mënut a yëngal Balla Gaye Boy Niang mën am xaalis nag. xaalis moom mën na ko fa am waaye mënut yëngal Balla te loolu dañuy il ñu neexal Balla Gaye pour Balla Gaye jël combat bi nag suñu waxantee dëgg nag dañuy neexal Balla Gaye mu may ko sens waaye am na nu ñuy koppatoo Balla Gaye du jël combat bi. kàddu gi fii la toogoon fii nga toog ñëw Lutte TV nee na fii la la dóor Daara Jolof ngeen bëri xamu fan nga naan maire bi yaay may ma ñeex. xam nga kooku bul ma wax ay waxam kooku dafa dof wérul. sa dof. barki Sëriñ Bamba wérul kooku su wéroon dina dem ci kër jàmbur taxaw naan moom moom kër ga ba police di ko fa jël ñu koy tëj ah su wéroon di su wéroon dina def kër jàmbur nga ne ñëw nay dëkk fa de yaa ko moom ban lay téye police kooku wéeru bul ma wax kàddu gi bi daar bëri daara jolof arbitre dafa suufle mu doon ma Pape Diagne Seras ma mooy ménageur am ma taxaw xam na ni mu demee lépp ñoom xam na ni mu demee kooku wérul te de boobu dañ ma doon saraxu pour ma bëreeg moom. waaw léegi nee na da nga doon da nga doon jooy li ñu jàpp loxo kii sëru meer bi. gëm nga loolu non nañu waxante dëgg man man nag sëñ boo ko defee da nga ma bett trop ma nañu dëgg nag bu doon tax émission bi neex émission bu neex wala ñuy wax ay kooku bul ma waxee kaddi gis nga kaddi xam fan laa sumbilee sàpp fan laa génn ci moom bi muy taxaw di xarab la dëgër naan la dëgër tapet la yambar la dani déglu ma moom moo ne la dëgër yambar la tapet la waaw dani dafa dafa bëgg muy dëggal ndax kenn mënu ko dëgg ci dëggal boppam la dëkk moom moom mooy dof mooy gis moom ku ne war naa wax la dëgër dara ba mu des moom dañoo dem combat la dëgër Modou loo Educa Oil bi nekk euh, Educa bi nekk nu mu fee nu mu tooti Educa Oil bi nekk Fora la dëgër dafa def signature sponsor ba ñu ko joxoon la ca nekk yëpp ëpp na 500000 te maag la dëgër ànde mu taxaw mu ñëw di yërëm tëru yow ndeysaan nan na waaw la dëgër jox ko jox ko lépp ndeysaan mu nekk fa di ko ñaanal di ko lu ne mu wax ko tey su taxee di xarab la dëgër man maa kii ab dof la waaye kii wérul bu nu ko jàppee nit xam nga li man daal li ma bëgg àdduna nañ yéen te jàmm. àdduna amul solo loo fi gis dafay jeex na loo fi gis dafay jeex nan yeneen te jàmm ndax nit ñi li ñuy wax tey ak li ñuy wax suuf ça fait deux man am na ñoo xam ne dañuy naan liiru dama laa bëgg dama laa bëgg ndekete yoo la ñuy wax suuf waxuñu dëgg. bëgguñu ma léegi sa combat euh, kii ñaari combat ngeen di bëre Gambie ak Sénégal. wala promoteur bi waxagul wala instant bi Gambie ngeen juboo loolu la promoteur bi waxagul xam nga combat bi Sénégal lañu waroon a bëre. suñu waxante dëgg te yàlla tax Sénégal lañ waxante woon ba affaire fin. mais bi taxaw nii laa wax instant bi Gambie nii fi a bëri dañu bëri Gambie nee na su jógee ca wax nee ñu bëri Sénégal tamit ca wax. oto bañ leen mayoon ak ak leen dig foofu. ak kër gi xanaa oto moom soxlaatoo ko moom kër ga nga soxla. ñaar yëpp soxla naa ko da léegi dama ne wulli nan teg oto bi at kër gi. ku daan jël ñaar yëpp. yow gëm nga sa bopp de. non non dama koo wax loolu ko daan na jël ñaar. wóolu nga sa bopp lépp moom dafa jël lépp waaw mystique la trop wuli dafa mystique sa trop moom lépp mystique la. monsieur la Diop a koy rey sànq. waay waay mooy Massi la. mooy Massi yow dimbali ma waay nga mooy Massi la man damaa xam kuy Massi la. Massi la Diop xam nga xaw ma Massi la. man sëñ Modou Faye laa xam at euh, Gassama Diaby at Serif Tambédou. roi d'Afrique bi kan la. ah sama waaj fii la dëkk tout pareil roi d'Afrique euh, surtout su njata su njata bi. fii la dëkk tout pare at sëñ siise mu sëñ Babacar at Sarr bu sëñ Mansour ak sama sëriñ bi. looy tàggatoo looy tàggatoo tànk booy waa Europe diaspora bi ñëpp maa leen gërëm di leen sant bàyyiwuma kenn sama yaay ji Adja Gass ca maa ngi koy gërëm di ko sant Sarr bu sëñ Mansour Séeri Aminata Diallo. sunu yaay ji waxal Adja Gass. sunu yaay ah d'accord nga. moom moo man ñëpp moo man ñëpp. moo man du seen morom Angleterre ah gi booy. yaay yaa waxoo cim waay caatam dégg nga. Khadija Sow Khadija ah borom Gambia borom ah, borom waay xoos ay Khadija Sow kenn du moom baata kunku kunku baatu kuntu borom baatu kuntu at waa Gambia yëpp maa leen gërëm di leen sant waa États-Unis bàyyiwuma kenn euh, nu mu tudd. avocat Youssouf Fall. la la avocat waaye sama avocat ba maître Ndiak ba maître Ndiak ba xam nga maître Ndiak maa ko xam avocat mag sama xarit. barke sëñ Bamba. ku mu nga gañe ay maître Ndiak ba yàlla nekk international. Serif Tambédou sama sëriñ la sëñ Modou Faye Gassama ñoom ñëpp maa leen sëriñ di leen sant. Ah, Abdou Dramé. mooy Gambien bu mag bi. Gambien xaritu wuli la nag. Abdou Dramé ñëpp la dimbal nit ñi. wulay mbërëm waaye waxoo dëgg. Abdou Dramé ma ko ñëpp la kooku dafa baax. nee na ko wulli xam nga lu ma wax. Hmm. nee na ko wulli fexeel ba loxo bi rek na dal ci bëtu liir bi du gis ko. Abdourahmane du wax loolu non non non Abdourahmane du wax loolu non non booy booy bàyyi leen seen affaire yi bàyyi leen affaire jaxase yi bàyyi leen seen affaire saytaane yi ngeen di def saytaane baaxul. ah BMG tamit ñoo ngi koy gërëm di ko sant borom BMG moo dik oto mi ah ñoo ngi koy gërëm di ko sant euh, kii nu mu tudd euh, ministre de la jeunesse nee na taal xam nga ko Guédiawaye la dëkk sama jigéen la sama xarit la. at musala maire Aliou Sall Sall ngaari budu Gede Baara Gueye Aziz Ndiaye Masata Ndiaye. bu mag bi tailleur bu mag bi. mooy euh, Modou Mbacke Baax yaay couture. mais nag jox léegi sama kii bi. non dinaa ko jox. Ah, mais kañ. non dinaa la ko ñëw fa. dangay euh, ñëw géej way mi ngi gàmm gi ñu waajal loo ko ci wax. Eh, gàmm gi non Aziz yow yàgg na koo def Aziz ndaanaan la yàlla na ko yaa yàlla na ko dugg bisimilah rahmaani génn ci alhamdulilah ndax Aziz dafa bëgg géej bëgg fi mu dëkk te gàmm moom gii yàgg na koo def gis na ni ñu koy teralee ni muy def indi berneeli ay Aziz kenn du moom yàlla na ko yàgg def li mu mën ren yàlla na mën déwén lu ko raw. jeex Boy Niang. ah Boy Niang de li ma koy wax mooy su fekkee dafa bëgg xaalis na ñëw jël Balla na Balla Gaye may ko sens ndax xam naa ne xaalis rek la fay wut mënu fa am leen lu xaalis. Balla Gaye 2 doomu du walees magi saa kees séeri buri bàccili bàyyi Mouhamed rakku liiru jan ah non non nan waxante dëgg rek. nga ni Balla non arrêté nañ ko fii foofu arrêté moom du ma ko waxate moom tuuti arrêté moom du ma ko dem. wasalaam non ma wasalaam. sëñ Madou Seye borom taw féex Pape Ndiaye da nga koo pose sëñ Madou Seye borom taw feex sëñ Madou Seye borom taw féex fukki yoon ak laa ko wax sëñ Madou borom taw feex sëñ Madou Seye borom taw féex at Tambédou. sëriñ Pape Ndiaye nit ko. am na ko na ma ko nit jàppee waaye dafa yembare nii la mën a mel. sëriñ yéen a bokkoon nekk xaw na maa. amul 3 garaawul xaw na maa rey salaamaaleykum man Modou maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante Xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah. mu ne tël Gambie jàkkaarloog moom. dina xam ne golo golo du golo du kañe de. yow yow xamoon nañu woon simb gaynde la. dama lay laaj rek yow xamoon nañu woon na. ba léegi da ah, xaw ma di jaar na ci di. man xamal ma ci intéressé na taxaw nekk doomu aadama rek en tant que loxo noo bëgg baal bët gémmi leneen li ay détails rek man xam nga lan laa xalaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama